mboolem ñi fi nekk di ay soxna la ay benn soxna ku lim na juum waaye su ma jëlee loolu yëpp rek teg ci loxol oustaz ki dana moom dana xam kenn ku nekk si ñoom lan mooy wàllam lan mooy axam lan mooy ci rëdd ci ndimbal bi rek joxe ma ko noonu

boobu laa ci laaj mbokk yi bi ñu ci jógee daaw dañoo ñaanal yàlla fekkee mu diir tur lu daal bi rek moo jaaxal suuf bi di daal ak moom waaye daal am na solo lool ci nga jox ñi am na solo Mamadou Ndara toppoon nañ ko kenn kooku yàlla yónnee te bi mu koy yónni jaaroon na lii mu nga tey bi mu koy yónni jaaroon na mel nii mu nga tey góor ñi jaaxle ndax ñi toog ci liggéey bi ko xëyee wàññi ko loolu yaakaar mu gas na la tasaar ñe leen waroon wutal liggéey leen loolu bëggee moo gën li jaas yi gën koo gaaw moo gën a lëkk jigéen ñi doon sëy kenn mu ngi gaaw xale te boo mayee ko xam nga dara def ci kaso yi ndax ma la yaakaar te jigéen la ko ci mooy ñu mare mariage ndax ci li ñuy waxtaan ñu ngi fekk sunu yaay Aïda sunu nopp sunu yaay Aïda sunu nopp amul juróom-ñaari at juróom-benni at la am mënut a roote maanaam soo la at ñu ne ko sunu sëriñ ba sallallahu

waaw ndax boobu ñu ngi leen di dëkk Kaolack ñu mën a ñaan di kër Dakar boobu kenn du leen woo. bi ñu doon indi yow jamono fekk baay bi ñu soxla ci seen kër yi ku ko jëli ku ko jëli bu ma doon fekk wàcc boo amee chance maanaam bi ñu fekk wàcc. 我我们马上来，我们先上来。他的手接一年多，一年难。我那边有人多人多的，我连看见那个风，我我我也说了，也不也不有。我感觉，我也也也不。

وما تنفع waaye nag doo am wala kuy am nañu am deux gos Tata a plutôt de gauche. Et yonent bi bëggoon xeetam ni dara lool. Soxna mu ne dafa wajur ak waduut ak waduut na ngeen takk ci jigéen ñi jigéen ñu joxe.

やめやめ言うてくる politique bi ñëw jamono daa fekk politiciens yi bàyyi politique pour defar penc yi ñuy politique pour defar poos moo tax nga ñu ko léegi ñu ne fekkoo feeñ na cour barkeelam bu génnee loolu lu daal lu daal yaakaar naa dégg ngeen message bi ci suba bi ñu

bu ñu tollee ci dal du leen dugal fu ñuy jàngal alxuraan ak yàlla leneen ñu tuddi leneen seen biir sëriñ Alaaji Ba sëriñ Xaaja Rawaan Ba sëriñ Ahmed Cissé Ba daanaka lool la mu yàlla wax dëgg gaa yi doog a talaaxu tabaxal ko ni ci gën a laaj yàlla waxtu yi nga si ne loolu la muy noonu après loolu la muy naan يكسر العباد جميعا رضي الله yàlla na ko yàlla fayal. nuurul mubiin ak ak nuurul mubiin ñaari nuurul mubiin la koy am nuurul mubiin ak ak nuurul mubiin lu tax ñu ngi saa yore Ibrahima Ibrahima am kooku maa ngi la woon ma taamu yi ci mu gën a ñàkkul tàmbalee fan ko tàmbalee fan ko tàmbalee liggéey ba ndax waaye Cheikh Wade moom ñoo moom ba mu tàmbali bi waaye gàddaay yi ma xoolee tegal seen baaraam foofu ñu ñaan ci ñuy nay ba dund ba déwén mu nay ñu ba ba déwén nay la ko ba tax si waat nag nii taxaw yàlla ಗುಣವೇನ ಯಾಮದಾಕರೇನ kon sosona suñu yaakaar lan mu ñëwaat ak ñu ñu yoon na yàlla yéen a ci xaar waaw saa bañ la

mu bàyyi la fi Yunus bi daw waaw ndax yéen ma réew moo koy siitale moo xam ko àttan ko ko nag mu fekk mu xam nag mu dox ko ma ko xool si la ko si mu yëg ndax li doon dox mu ma ko xool si mën nañ koo dox dara tax te loolu ba mu xoolee banu Israël Firawna bi politique politique am bu ñaaw la ku ñu ko doon bu dee góor Firawna yëpp rek ñu jël paaka lii ba mbaal ñu wedd ba mbaal ñu soo def ba muy ay junni junni yi pourtant mbaay ak ko ngeen mbaal yéen bàyyi yàlla daal ne paa yi ñëpp a ragal dee ndax naa yi loolu paa ngeen dee am paa yëpp a ragal dee ñun xale moo ragal biir nun xale yi rek nun ñu dee yàlla bàyyi ko paale bàyyi ko meree dan tëmlee loolu daal la soxla ñaar la ñuy mu ne yàlla na ngeen yee ñëpp am ci seen bopp. déedéet mu ne yàlla na ngeen dem aljana pare yi ne amiin beneen bële ba jaaxal foofu moom la faa kenn la la daaj yee. mais ni loolu la ko daaj yee mais boo ci gis ci ra ci la ko mayee doomam wala. bi ñu mayeewul doom ku ñu mayee sa doom rek amalul jox nga xos léegi nag lii xaar pour ñu dee li jot mu nga soog rek di xaar boo doon gudd ba rek sant yàlla waaye mënul xale yi jéemuñ jéemuñ benn genn caaga moo tax dee léegi dem léegi yàlla da nga jënd Moussa kon ñun fii bi ko yàlla tànn xam na moom li tax mu tànn mooy li xew ci penc mi dalagu ko ah li xew ci penc mi dalagu ko li xew ci penc mi dalagu ko changé penc mi yokku ko. लेकिन मुझे पिंच मनाने लगा वो यूनी पिंच मनिये मगाओ को नूर को या यूनी सुरंग है दरना मैं जाई मैं जाती से को बराबर दरना मैं जाई मैं जाती से को लियो मैं जाई नो उधर पुर

lu tax balaa nga ne tur yooyu duuloon ba ñëpp d'accord ci tur yooyu léegi message bu doon ko jàll ndax boo yaa ngi déglu ci ñu tuddee la bàyyi message bu doon loolu xoolal tey noonu la ñu doon ustaas ustaas tey bala dara loo xam ne waaye boo guur sëriñ ustaas waaw ah, mooy tur ñuy dajee bi sax ustaas ak ñun sax maanaam soog ñu ngi lay jëriñ ak ñun sax doomu la rek léegi wax ustaas ak ñun sax léegi man yow rek lay jëriñ man waaw yàlla nag li nga ci mbir yi nga nekk gars yi dañ ko mbir ko négatifié kon tuuti fii dem feneen foo xam ne média yi médiatisé bu loolu ndigal daal di koy bàyyee nag نقل ولو فقد عمته عمنا من اليد وضاع وجب الشكر علينا ما دعا لذلك ايها المبعوث فينا جئت بالامر المضاع جئت شرفت المدينه مرحبا يا خير ذا عقل الوجيه يتاكل ينام غدا ويملك

Give voice. use them your talent bu leen ñu woon gars yi ñun du ma yonante ndax daf leen gën leen abasa am na ko pour maanu ku laakoon sa Abdul Aziz ni mu tuddee al Adami yi tuddee ko woon ressembleur je pense que loolu loolu une grande ressembleur ngeen baal ma ndax am na léegi même derrière ah loolu ressembleur lu ko baax ñu tànnee ku doxal loolu tuuti ñu naan ak cam ñu naan ñaar cam wax naa ko yow Jokalante benn benn la ñuy dugal maanaam comme moom lu muy gën a bëggee si daanaka ñaareel yëpp rek am na ci li mu bees mu ne ma buy jël si biir ma ne ko si biir bu dégg-dégg yaa ngi ci biir ji boo ca waxee rek boo yaa ngi ci biir nga boo xaar ko am na benn la ñuy dugal yéen a ngi ñu fekk ko buur bu Maaruun Najaasi bi gaa yi xëy si ay ñëw si dugub ba mu xëyee song leen pour am koppar wala muy gën daf leen a woo bañ ñu ñu doon ñu ne la duma baax mu laaj leen leen dafa solo lu leen doon seen mbokk ak lu mu la ko joxal waaye loolu ba tey la rek ñu doon ree te daal te daal ku ñu la fekk maanaam maanaam boo demee kii dara boo demee ma dee ku ñu la fekk maanaam maanaam mu ne la kii dara boo demee ko maanaam dee ndax maanaam la dee moom kay bu la kii dara seetlu ko ba mu rek ba ba ba bukki bukki ku ñu woo mbir ko ci ker mbir ko ci naaj nga wuyu te wuyu woo yaa ma ma naan loolu lañ ko ku ñu woo nga wuyu te wuyu woo mbir ko ci ker mbir ko ci naaj yaa ma naan bu gën moo maanaam jërëjëf Baye boobu di àgg ko seen la. ceeb la mooy li ñu def li ñu def si mooy lépp ko ci kaw loolu lu gerte laaj ñu ne ko mu ne xëy na ci yow gaa jël lan waaye Najaashi ak gaa yi lu leen dootale seen i bopp ustaz yaa ngi tax am kilifa baax saaba yëpp nekkal yekkat àll la Jaafar Jaafar naa mën ko topp lu ma ko Jaafar

والنزول قراءة لكل مخور ومرجع ويعني في النجاتي لجعفر قراءة نكف جعفر جعفر أنا قايم يي يي كروشي ويي لا كروش لا كروش ممكن أقول جعفر قراءة man ne dama ko moom waaye ñii nga leen di waxoon najaat yi taxaw gisoo sa maanaam lool alal yi ah yónni ñoo gën a foofa pour ci seen baax man nañ faa doxal état islamique ñu ko def sax te waa Màkka gànn kon fële najaat yi rek moo dugg ci yaram ba mu des ko dox benn sama kur la nekk xanaa nekk nañ ay dox ba muy dem waaw sama kur la nekk xanaa nekk nañ dox li ma ko jàngee ma béy ko xam nga moom loolu ko loolu ko servir mooy internet kenn mënut a mënut a ko wax ba ma seetaan la servir vidéo di wut tool yi ma ma kii bi di ko yëngu di ko wax ni commentaire daal di ko yëngu léegi daal wax ma ko si ma ko bëri ba lépp oh ma dëgg te benn ginnaaw bi ñu wax si suuf si suñu woon ñu naan sama dënd bi danaa maa ko seetaan dama ko yëngu bay ñu ma ko daal suñu yëngu yëpp naa leen yàlla nekk ci li nga xam doo

arrucinare dove la non parecchia situazioni o finale di e r o lo fino c a leggera c o non l e g g e a c a g l o ma donato grandi o l e r o t a a servire o fino o solo solo si è cammini o n voleva mai un modo g u a r guarda g u d a guarda g d a konbile ediyor, dikkat konbile ediyor. Sonra! Alo? Dikkat konbile, dikkat konbile ediyor, dikkat konbile. Amul Siko, bakal wadami. Dikkat konbile ediyor. Dukkan Amul kan ini yakuna. Bakal wadami. Kan amuñu ko ak suñuy nelaw mun na ko teel a mun ñu jël dox dox amul ko. ndax dox ba xëy na yéen ñeent nelaw mun na ko su ma yëgee nelaw mun na ko ah loolu la ma ko doy ak yàlla ngeen ñu bindee mooy yoon bi ma lu di daa dina li wax xaaj jaay nga saako tey xaaj jaay nga saako ne la daa xar ba nga laaj jaay wax rek day wax ñun de la ñu bindee waaye ak yoon bi ko jëf bi ko bi ko biir ci ma jéemee ne ko yow waa ak ne ndax suñu ci nii ci bàyyi fii ñu tànn li si nekk rek boo leen yàlla la yóbbu ay xeeral la ci génn lu ne ñu ko yàlla yàlla malaaka yi ñu soppi ko ay sàllaam ngeen baal ma ñu sàllaam ñu soppi ko ay sàllaam te sàllaam bu ndaw day sawar

this. I go away. Then I'm dead. <laughs> Mom, leave